Mamadou Diallo tekki may wax ñu ngi remercier également le coordinateur du Front National de Résistance muy Mamadou Souran ñëw na te bokk na ci teel a ñëw te jàpp na également ci bis bi donc ñoom may mën a bu sama wax ci seen tur léegi nag sunu gan yi ni ñu dëkk Géejawaay nag nañu am benn compréhension rek ñu may gan yi yeneen instant ana may mun a may mun a ay ay ay Mamadou Lamine Diallo se prépare après Mamadou Lamine Diallo notre frère Mané Seck salaamaaleykum mbokki Géejawaay nuyu nañu leen bëgg nañu leen nuyu naa la nuyu naa la taaro xee jërëjëf damay wax ne suñu ñëw tey fii mënoon naa ñàkk mais nag da ngeen yor loxo yu set gore bëgg setal seen bopp parce que seen maire la ñu tuumaal seen maire moom lañu ñu jiiñ corruption ñu ñëw ci seen wet nag du seen maire ah mooy ku siif mairie bi waaw ba tey lool la moom la ñu jiiñ sàcc six mille milliards fii tànqamlu di doxantu ak i kokkaliwaate ngeen wax na yéen dangeen ngeen a bëgg a dindi tuuma da ngeen a bëgg a wone ni yéen bokk leen ci càcc googu te ay gor ngeen ñu leen di jaajëfal askanu géejawaay di leen wax ngeen gën a taxaw parce que mbir mi yéen kenn waru leen ci jiitu parce que yéen bi mu leen commencé sàcc du tey yéen yàgg naa siif li ngeen yor démb la ko seen mairie bi kon yéen xam ngeen ni jikko caay-caayam yàgg ngeen ko xam na mu defoon nag ba siif mairie bi noonu la def ba siif li nga xamante ne tey moom la Sénégal yépp bokk kon ñun yéen jàppale ne xeex bi dafa tàmbali mais amul àpp Aliou Sall nag ñun yàkkamtiguñu ko yàkkamtiguñu ko parce que magam dafa jiiñ àdduna bi yépp saj ba ñu jàpp ko moom loxo ci poche kon kooku amul lu muy weddi ñuy xamal rek na leen ni ñu fi ñëwee tey nii solu ba jekk bu doon suñu sago chaque jour noonu la ñuy xeexee ndax ñun sol ay tuba yeeki ji loolu amaluñu njëriñ mais nag takku nañu tey wàcc kol yi wàcc rob yi wàcc xaftaan yi wàcc lépp jàkkaarloog moom xeex kon jaajëf jërëjëf jërë ngeen